Ousmane Beye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. Ousmane Beye nga nekk économiste sa xam-xam màcc ci wàllum euh, koom-koom actuellement ban analyse ngay def euh, ci yokkute gi nga xamante ni dañ ko nemmeeku pratiquement euh, ci prix yëpp lu ni mel lan moo ko waral. waaye yokk bi rek dañ koy war a féetale ci li nga xam ne moom la ñuy wooyee crise mondiale ci économie ci koom. àddina bi yëpp ñoo ñu li ko indi rek mooy bi ñu génnee ci mbas mi mbasu Covid bi. xam nga mbas mi tax na nit ñi kenn gënatuloon bateau yi dawatuñu woon avion yi dawatuñu camion yi dawatuñu te ñooñu bu ñu dawulee te te yow ngay jéggaane bitim réew kon doo jot li nga soxla donc loolu loolu moom bokk na ci li indi crise bi ba pare nag bi ñu génnee ci mbas mi te mbas mi sax mi ñuy topp am na ñoo xam ne mi ngi leen topp ba léegi parce que mu mujjiwuñu génn ci tolof tolof yooyu ba léegi seen seen liggéey yàqu na seen comme yàqu bon ñu génn ci mbas mi nag dugg ci guerre bi nga xam ne moo nekk diggante Russie ak Ukraine te ñëpp xam nañu ne Ukraine moom dëkk boobu moom yàlla daf leen tere parce que li nit soxla yëpp ci àddina presque foofu foofu la soxi ko foofu lañ ko jëlee bu dee blé bi ñu defaree farine pour defar mburu ak yeneen ak yeneen ñoom ñoo ëpp liñ koy liñ koy bay ñoo koy jox ñoo koy jaay dëkk yu bare bëri bu dee pétrole bu dee gaz foofu la jógee ak yeneen ak yeneen yu bari yu bari yoo xam ne buñ la booloo ko boo ma ko boo ko waxoon sax da ngay da ngay yéem ci yàlla leen yàlla may kenn xamul na mu toll. waaw hmm. ah, ñooñu nag bu ñu nekkee ci guerre te ba pare bateau yi mënuñu génn pour yóbbu ceeb bi yóbbu blé bi yóbbu pétrole bi yóbbu eh, kon kon kon ñi euh, ñi ci des nga xam ne dañuy jéggaani bitim réew dañ koy yëg parce que duñu jot dara moo tax d'ailleurs bu yàggul Macky Sall dem na foofu Russie waxtaan ak président Russie Poutine pour ñaan ko ne kon quand ñun bokkuñu ci guerre bi ñun defuñu dara mais ñoo ci gën a sonn parce que ñun fii lañ daan jëlee ay ay ay blé ay ay ay pétrole ay ay ay gaz ak yooyu te mënutuñ ko jot a ah, dañ leen ñaan ngeen may bateau yi ñu mën a ñëw ngeen kañ guerre leen seen geer rek mais bateau yi ngeen bàyyi leen ñëw ba Poutine d'accordoon léegi sax bateau yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais loolu nag yu bëree bari boo gisee dëkk yu bëri dëkk yu mel ni Hollande seen inflation passé na dix pour cent maanaam téeméer boo jël ñoom passé nañu fukki ci inflation te inflation dëkk ci dëkk yu mag yi ñu ngi ko doon xamee ci benn rek téeméer boo jël un pour cent benn ñun ci dëkk yi nga xam ne dëkku Afrique yi ak dëkku néew doole yi suñu inflation daana dem ba téeméer boo jël ñett wala juróom-ñaari poñ eh, seen seen ñaan mais eh, Angleterre sax dafa nekk ci inflation dafa nekk ci ay tolof tolof ci koomam dëkk yu bari nekk ci ay tolof tolof donc léegi li may wax te waxoon naa ko ci bi mbas mi ñëwee. waaw mbas mi waroon ñu jàngal lu bare bare. Mm-hmm. maanaam ñu jéem a defar ba nga xam ne li ñu soxla yëpp dinañ ko defaree suñu dëkk dootuñu jéegaane bitim réew. parce que li mel ni mbas mi mar détaillé bu ñëwaatee kenn ñaanu ko ci yàlla bu ñëwaatee ëllëg dana gën a metti te donc bu ko defee nag dañ ci war a euh, def suñu kéem tolluwaay kattan vraiment gisee gi xam ne quand am na ñu ndox am nañu ay loxo xale yaa ngi fii. Eh, ay waxa ay waxambaane lañu am nañu doole macha allah te liggéeyuñu nañ leen organiser yóbbu leen vallée du fleuve wala Casamance wala eh, Sine Saloum ndax ndax léegi sax taw mi sax nit ñaa ngi bay ceeb ki taw mi alors donc xale yi boo leen yóbbu organiser leen vraiment danañu fexe ba nga xam ne ci horticulture affaire soble affaire pomme de terre dootuñu soxla di jéegaane danañ ko mën a li ñu li ñu soxla yëpp danañ ko am suñu dëkk li ñu soxla ci ceeb mën ko fay am gis Inde barki démb nee na dootul jaayati bitim réew ceeb. waaw te ñun Sénégal li ñu lekk ci ceeb lu bari bari Inde lay jóge ñun sax ñu lekk nii boo gisee dara yokkoogul stock bi fi nekkoon xam nga ñun bu ñuy stocké dañuy stocké ñetti weer ñeenti weer juróom-ñaari weer. Mm-hmm. dëkk yëpp la ñuy def xëy na li ñuy consommé ba léegi li ñuy jëfandikoo ci ceeb bi xëy na mooy li ñu stocké woon li li ñuy jëndoon denc ko pour ñeenti weer pour juróomi weer mais loolu bu jeexee Inde ne dootul jaay bitim réew kon ñun li def. xam nga kon ceeb bi sax prix bi day gën a cher kooku dama ko fàtte wala sànq ci français parce que mooy la loi de l'offre et de la demande. et de la mm-hmm. euh, ngi noonu bu fekkee ne offre bi moo ëpp njëkk day wàññeeku. kon bu fekkee ne ñiy laaj ñoo ëpp offre bi euh, yokk. kon mën nañu wax ni daal Covid bi ak guerru Ukraine bi moo waral lii yëpp. waaw loolu yëpp loolu bokk na ci li ko indi mais nag dama wax ne am na loo xam ne daf ko indi bitim réew la jógee. kenn mënu ci dara am na loo xam ne rek ci suñu biir la ñun te suñu biir mooy jaaykat yi ñu fi bare bari dañu xëy bis rek bëgg yokk prix te kooku teguñu ko fenn de bi quand même dafa am yoon dafa am réglementation loolu moo tax may ñaax waa ministère du commerce ñu jugaat seen bopp xoolaat seen bopp parce que ñoom ñoo yor euh, direction commerce intérieur ak contrôle économique ñoo ñu ñoo war a def seen liggéey ñu jox leen ay matuwaay ay euh, oto ak li ñu soxla yëpp. seen logistique bi ñu soxla ñu dem ci biir réew mi jéem a xool parce que bu njëkk amoon na tàngu Senghor amoon na tàngu Abdou Diouf amoon na. Mhm. même tàngu tubaab bi gouverneur général yooyu amoon na ay contrôle économique comme ni service d'hygiène ak yooyu yëpp donc bu ko defee ñu dem def seen liggéey ñiy yokk kii nga xam ne yokk njëg te teguñu ko fenn ñu ñu ñu ñu teg leen ay daan parce que teguñu ko fenn parce que man dégg naa li xaw ci fan yi paase rek Touba. Mhm. li ñu doon jaayee macha allah xaw ma. kilo soble 3000 2500 mais kooku teguñu ko fenn dëkk bi dafa am yoon tamit du lu waay neex rek def. entreprise euh, Ousmane Beye entreprise yi defar euh, ciment nekk fii ci Sénégal ñett lañu euh, doon nañ wax ni dañu am ay jafe-jafe rawatina ci wàllum finance ba actuellement soko Sococim moom dafa arrêté production ban analyse ngay def ci mbir mi en tant que économiste. waaw kooku ko ne dañuy arrêté seen. liggéey parce que aussi ñoom wax nañu dëgg xam nga kenn du liggéey pour perte da ngay liggéey pour nga gagner pour nga jënd essence fay say ouvrier fay ñi la liggéey sinon doo ci yow sax yow sa bopp nga gis sa bopp yow mi nga xam ne yaa dugal sa xaalis investir nga gis sa bopp mais bu fekkee ne ñoom mënatuñ ci génn parce que nee ñu ci li ma dégg intrant yi mooy li nga xam ne day dugg ci li ñuy defaree ciment parce que ciment du xeer rek am na ay carburant essence ak yeneen ak yeneen. ak gaz ñu ko liggéey nee nañu yooyu dafa yokk ci àddina bi ci ci marché international bi ah te yooyu bu yokkoo bu duggee ci seen li eh, ñuy defaree ciment bi foog njëgu ciment yokk waaw léegi njëgu ciment bu bu bu yokkoo suñu produit intérieur brut maanaam suñu euh, koom-koom ci at bi li ñu mën a euh, génn ci koom-koom day wàññeeku parce que nee nañu BTP bâtiment travaux publics moo yor ci lu bëree bëri ci PIB bi ci koom bi jëm kanam parce que nee ñu sax quand le bâtiment va tout va nee ñu bu bâtiment doxee rek yëpp dox na dana dañuy tabax di louer di jël emploi emploi dañ leen di fay xaalis ñu am pouvoir d'achat dem ci marché bi di jëndaat ñuy jaay di jarle xam nga donc dafa laal ñu bëree bari donc léegi li ma bëgg mooy ñaan état bi mu woo leen ñiy defar ciment ñu toog ñu waxtaan bu fekkee ne état mën na leen gunge ci kaw wàññi affaire impôt wala bu ñu amoon ay bor mu ne leen bon bor yi di toog ñaari at du ngeen ko a ak yu demee noonu euh, ñiy defar ciment bi ne waaw ñu ne aussi sax dinañu góorgóorlu mën nañu def li dinañu li ñu doon wàññi euh, dinañ ko xaaj ñaar wala nangam nangam fay moo loo waxtaan la waaw donc euh, bu ñu gisoon doon ñu waxtaan parce que bu ñu ko defulee bu ñu demee ay weer yu neew waxuma sax ay weer mais ay fan sax boo motul dinañ ko yëg Mhm. ci répercussion yooyu sax laay euh, taxaw Ousmane Beye euh, maanaam mhm. usine bu mel ni Sococim arrêté production sûrement euh, dina am lu mu jur exactement lan la mën a jur est-ce que mën nañ xaar sax di d'ici quelque temps ñu ne yokk nañ loyer bi ainsi de suite waaw li mu jëkk mën a jur mooy mhm. ñoom d'abord seen liggéeykat yi dañ leen di wax ñu toog seen kër xam nga kooku pour na dara lu lu doy waar parce que ñoom duñu am luñu ñu yóbbal seen njaboot du ñu amati lu ñu jaay ci biti te ñiy jaay dañuy xaar ni ñuy ñëw jënd moom la ñuy wax nga jox nit pouvoir d'achat pour mu jënd loolu mooy doxal réew mooy doxal koom kooku benn la ñaar ñiy tabax dootuñu jënd wala bu ko jëndee dañ ko jëndee lu cher du dëgg tamit xëy na sax ñoom tamit dinañu wàññi ouvre yi liggéey ak ñoom parce que dañu bëgg aussi li ñuy liggéey ñu gis ci seen bopp te li ñuy tabax su paree buñ ko nee jaay bu dee ay logement dana gën a cher ndax liñ ci dugal dafa cher dañu yokk njëg li buñ ko naree luwee tamit xëy na location bi dana cher ndax euh, njëgu ciment bi li muy yokk ak yooyu yooyu yëpp moo tax euh, loo gis rek yu mel noonu day laal secteur yu bëree bëri donc euh, li muy mën a jur bëri na trop parce que pouvoir parce que économie épargne hmm. consommation ak investissement moo koy doxal ak commerce extérieur ngay jaay bitim réew mais ñun dañuy jéggaane rek te ñu investissement bariwul léegi nag bu ñu bëggee dog consommation bi day doy waar parce que nit ñi bu ñu amatulee xaalis bu ñu génnee pour jënd ñoom ñu am euh, loo xam ne dafay métti ci ñoom ndax du ñu am lu ñu yóbbu seen dër mais ñiy jaay aussi di xaar ku jënd bu ñu gisul ku ku jënd tamit ah, day doy waar xam nga voilà donc euh, économie moo mel noonu donc balaa ñuy yegg foofu nag. Mhm. état bi nga xam ne nit ñi dañ leen fal pour loolu. loolu lañ fi nekkee loolu nañu woo ñiy defar ciment ñu toog ñu waxtaan ñu seet naka la ñu mën accompagner lii moom war nañ ko régler rapidement. parce que ko réglé wul ci ay fan ay weeru weeru néew wax sax ay weer mais ay mhm. motul dinañ ko yëg. Euh, pour expliquer yokkute googule ñenn ci commercant yi sax dañuy wax ni euh, fret maritime bi dafa cher trop euh, te état bi mënul ci dara lan nga ñu mën a wax en tant que qu'économiste euh, ci fret maritime boobu comme ça sénégalais yi mën ko comprendre. waaw loolu moo tax ma ne euh, crise bi dafa am ñaar ñaari tànk maanaam ah, facteur exogène ak facteur endogène dafa am loo xam ne ñun mënuñ ci dara bitim réew la ah crise bi am Ukraine guerre bi ñun mënuñ ci dara ak euh, mbas mi ñu génn ak transport yi ñun contrôlé wuñu transport yi donc c'est les facteurs exogènes yi nga xam ne daf ñëw day ñëw dal suñu kaw mais mënuñu si dara ndax bitim réew la jege mais am na loo xam ne nag ñun suñu biir la. parce que ci fan yi passé déggoon naa fi commerçant yi dañuy jékki-jékki rek yokk prix yokku yokk soble bi yokk njëgu pombiteer kooku teguñu ko fenn dégg naa sax Touba dañ fa doon jaay xaw ma sàkku euh, soble xaw ma ñaata soble 3000 francs. 3 mais non kilo soble 3000 francs. voilà kilo kilo 3000 francs sac bi xaw ma 50 000 xaw ma ñaata. exactement kooku teguñu ko fenn moo tax ma ne état bi commerce euh, ministère euh, du commerce moom moo élif direction commerce intérieur ak contrôle économique. dañ leen war a jox ay gaanuwaay ay ay ay vraiment euh, dimbali leen ba nga am seen matuwaay boo xam ne dañuy mën seen liggéey ni ñu ko waree ñu dem ci biir dëkk bi dëkk bi yëpp nag laa waxuma Dakar rek dem ci gox yëpp di contrôler bu njëkk daana am temps gouverneur général boobu amuñu indépendance temps wu Senghor temps wu Abdou Diouf loolu dafa war am ci dëkk ñu contrôler parce que boo bàyyee nit ñi def lu leen neex teguñu ko ci seen di yokk prix loolu loolu mënul nekk kooku nag donc ñaari facteur moo am. facteur exogène loo xam ne bitim réew lay jógee ñun mu jël ak loo xam ne ci suñu biir la mooy facteur endogène léegi nag li nga xam ne xëy na dana ko faj mooy ñu dem ba nga xam ne li ñu soxla ñun dinañ ko mën a defaral suñu bopp fii ci réew mi nga xam ne li ñu soxla yëpp ci ceeb dinañ ko mën a am dinañ ko mën a bay am ko li nga xam ne dinañ ko soxla ci soble ci pomme terre ak ci dal dinañ ko mën a bay hmm. yàlla def na sax am na ñu gaz ak pétrole xëy na fekk at wala ñaari at doot nañu top kenn di ko laaj pétrole wala gaz mais rek quand lekk moom lu am solo lu ci nit parce que mooy téye nit du dëgg donc euh, foog ñu lu vraiment ba nga xam ne dootuñu jéggaane ci biiram réew di dem bitim réew di jënd la parce que ay nit lañu am nañu ay euh, am nañu ay am nañu ndox am nañu fleuve Casamance fleuve Gambie fleuve Sénégal ak yeneen leneen ba pare sax nit ñaa ngi bay léegi ceeb ci taw bi en contre saison. d'accord kon kon donc donc kooku foog ñu jëm a góorgóorlu ba nga xam ne dootuñu jéegaane am nañu ay xale yoo xam ne ay ay waxambaane lañu am nañu loxo am na ñu doole macha allah te liggéey liggéey rek la ñu bëgg du leen du organiser leen am nañu ndox xëy na xaalis mooy xaw a nekk problème bi pour jënd ay machine ak xaalis moom dañuy dem ci marché international bi dem le marché financier international wala wala suñu épargne ñu ci seen def pour en tout cas daal nit ki da ngay sabablu. pour yàlla dimbali la. kon daal mën nañu wax ni Sénégal mu ngi traversé crise économique bu metti non non non ñëpp nekk ci récession récession boobu dig boobu dig laa koy woowee sax ci wolof ci àddina bi yëpp la am na dëkk yu mel ni Hollande wax naa la ko sànq seen inflation jéggi na dayoo ba seen premier ministre dafa dem télévision wax ak askan wi nee leen kat euh, toll nañu diggante wax wax moo xamante ne dëgg affaire yi métti na. koom bi yaa ngi dellu gannaaw mi ngi rës mais nag mënuñ ci dara ñi àddina bi tëree jamono yi moo tax mais nañu góorgóor ku nekk wokk sa simis ñu jéem a seet dañuy def am na Angleterre Angleterre moom ñu ngi sax bëgg naa Hollande boo boo xoolee presse internationale bi wala nga déglu ay BBC wala yooyu. Mm-hmm, mm-hmm. mais seen seen seen seen seen dafa metti France tamit Macron mi ngi doon euh, jéem a ñi ñi mu yërif français yi di wax ne rek tey ak suba gannaaw suba dana metti du neex comme ni ñu ko foogee nañ ci préparé wu ñu fagaru ci donc ci àddina bi yëpp la donc ñun mënuñu sepp génn nañu ci dafa mel ni rek euh, pour ma génn tuuti ci wax bi la ah, affaire kii bi nu mu tudd inondation yi ndox mi taa ci kii bi xam nga boo doon taw taw normal état bi li mu dugal ci xaalis pour euh, xeex Euh, temps yooyu kon du am benn problème ndox mi dana dem mais li taw ren météo àddina bi waxoon nañ ko ñun nañu sant yàlla sax euh, donte benn bakkan dem sax lu rëy rëy la mais ñun ay ñetti nit ñu dee la ñoom xaw ma ñeent mais Mali gii am nañu ñu ëpp fukk juróom Niger am na ñu ñetti fukk nga dem Pakistan am nañu junni ak ñeenti téeméer ak xaw ma ñaar téeméer doomu aadama yu yu gën àddina ndax euh, ndox mi ndox mu bari mi dëkk yu bëree bëri kooku yàlla moo ko def moo tax sax yenn saa yi damay kar sama xarit yi ma ne nañ dellu ci yàlla parce que yàlla daf ñu génn ci mbas mi rek dugal ñu ci lii ndox mu bëri mi te bi ma génnee barki démb dawal sama mi bëri ma la xobra rek mi lañu soxla ndox am fu ñu ko dugal mm-hmm. nga xam ne bu nawet bi passé sax dinañ ko mën a jëfandikoo dana baax trop ndax day yàqu di dem te ëllëg dañuy soxla ndox pour pour roose yi ñuy bay ak yooyu soble yeeg pombiteer ak yooyu moo tax Abdoulaye Wade quand même war nañ ko njëkkal ci loolu parce que bi muy xalaatee bassin de rétention li ma lay wax ni loolu la xalaatoon ndox mi taw di yàqu mu ne naa koo jël ut foo ko def ba nga xam ne bu taw bi jeexee sax dinañ ko mën soxla donc yu mel noonu même bassin yi bu fekkee ne sax kii ñu seet yan solution yu mel noonu dañu mën a def ba nga xam ne ndox mi du yàqu parce que aussi bu ndox ñëwul dañuy jooy dem ci jàkk yi di ñaan suñu borom bi pour mu wàcce ndox mi bu ndox mi ñëwee bu bare tamit <laughs> dañuy jooy loolu loolu mooy paradoxe. de paradoxe Ousmane Beye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi di jaajëfal man tamit. may hmm. voilà may fàttali économiste maanaam sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom-koom.